asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen di ziar di ñaan yàlla dolli leen jàmm dolli jàmm nag buñ koy wax fii ci Sénégal mooy ñu fexe ba corona bii départ dem yoonam dina dem bu soobee yàlla yàlla lay neex mu jóge fi bu naqaree bu neexee yàlla yàlla ne du fi jóg il faut ñu dund moom ba àpp bi mat. nanu gëm yàlla Sénégal bi ngeen di baala xa def lu ñaaw si réew mi yàlla nga ne këj du leen dëgg tey nag bu yàlla ayee nañ ko may mu doxal doxalam mais am nañu droit nag ne allahuma dimbali nu si corona bi pour mu jóge fii dem ba biir géej nga saral na ko fooga ba nu degee teg moom nag nu moom fa sa allah xira vers 16 heures am nañ si droit nañ ko def dama ne won sax danay ñëw toog bàyyi gars ñu bàcc mu leer mais j'ai vu que am na lu nga xamante ne boo waxul dafay niru leneen man jaraaf ku nekk xam ne ne ku ma def ma fayu bu ma fayoo dama ñëwaat fii toog parce que Ablaye Diouf Sarr Ablaye Diouf Sarram léegi la laa laa fi nekkoon lii nu defoon ñaaka defoon xam ne ne war nu kaa defe nooga dan ko tudde woon tànka te du tànka ma ñëw indi problème teg si dëgg way mais mag ñi day wax ne adduna kenn du ko yenu doon si dox Ablaye Diouf Sarr bi jàng jotee jàng bii moo leen liggéeyal boppam dem na liggéeyal boppam te Sénégal xamuñu ko bii yàlla dogalee pour que mu nekk ministre nekk na ministre sonn si yéegul wàccul waaye dafa tox si ginnaaw président bi yàlla nag bu namee namee euh, ñu naan président Macky Sall nama ñu naan ministre Abdoulaye Diouf saa benn sénégalais mënu si dara benn togolais manu si dara nan waxante dëgg rek politique moo yàgg Sénégal te nañ koy defee bokkul ak niñ ko war a def xuloonu xeexunu toog pour waxante dëgg ndax Sénégal waruñoo xeex sunu biir mais bodd konte bi am ci xeet yi suñu ko moytuwulee dinañu boyal réew mi te jaru ko Ablaye Diouf Sarr fii la dëkk ci Ndakaaru Ndakaaru ku nekk nag xam ne mooy capitalu Sénégal damay wax toujours ku sañoon dëkk ba nga faxe ko doon fa mu doon capitalu Sénégal nun na yàlla jiital nu ngi jiitu taxaw jàppa sunum njàmbur war a jël lépp teg ko si yoon Ablaye bu nekkoon ne ñu ñoo ko jëkk fekki lu nekk xam ne ne lébu na le n'a pas froid aux yeux mais ni ñu gisee affaire bi man sax damay jàpp ne non dañu nekkoon di ga di ŋàñña président de la république te loolu ëpp na si gémmañ ak nit yàlla moo fat ba pandémie ni pandémie bi ñëw ñu ne non nañu maintenir maintien la ñuy def dafa mel ne équipe bu football bu nga xamante ne dem na ba ndeysaan ñu ngi naan équipe yaa ngi wàcc ñee ngi def lii ñu ne non nañ maintenir suñu rythme comme sa dix-huitième gi ñu jël ñu jël ko ba ñu wàcc dem euh, dem dem si euh, beneen division. politicien politicien Sénégal bu fekkoonte ne dañ bàyyi seen xel si waxu nit ñi dañuy dem a dem ba xam ne ay yàqkat lañu parce que président Abdoulaye Wade nii lañ ko defoon dafa rek gars yi takk seen i godaas ab Abdoulaye Wade nii Abdoulaye Wade nii bii Abdoulaye Wade naan girib nga président Macky Sall ñoom ñëpp ñu àndandoo mais xol bu bon melentaan xam loolu du ko mu jot ak matt noonu danu bon te nanguwuñu ko ba waxee nu ne nun Sénégal réewum tera du réew ma baax xam nga doon baaxul parce que kenn yéenewul sa morom jàmm Abdoulaye Diouf Sarr am na droit nekk ministre ak si euh, président Macky su fotee nañ wax rek parce que réew mi kat attention ñun lébu yi ñoo transformé réew mi def ko réewam xeet ak xeet góolu na ñëpp xajal na ñëpp yaatal na ñëpp ba bàyyi laay ba mu ëgsee def ne yëkkati leen sàkk yi ngeen puusal ko yaatal gan yaa ngi ñëw boo ñëwee wakaam mag yi wakaam dañ doon wax ne ku dugg wakaam di gan yal na la may teraanga fàtte ñaanal gars sama classe geex ñii lee ñeex liggéey kenn ku nekk boo waxee sa yaay mu ne ah seeni maama ko ñaan de danu ñaanal gars yi la ñëw gan ñi fàtte leen yéen loolu bu nekkee noonu bu nekkee noonu dama demee noonu waaye man si sama xalaat Sénégal war nañ mën a ànd bi nu amee indépendance ak léegi way nañ fi way yu bari bari yoo xamante ne way wu si nekk dafay représenté ab joow bu ñu toogee ba deux mille euh, euh, deux mille lii xew xew mooy que ne nañu boo dogante nañu xeex nañu xuloo loolu du yoon euh, jaraaf al wax na ko léegi bàyyi daam wax na lu ni mel lii xew mooy réew mi buñ ko yàq boo dëkkonte baaxul de yàqam réew gis ngeen Côte d'Ivoire looloo fa xew tey jii ñu nga nele di tabax te mënuñu àggal buñ ko yóbbu Sénégal kuy contre président Macky Sall ba ba ba ba ba ginne ñëw ne da lay toxal yóbbu la àllaaxira da ngay war a bàyyi président Macky Sall en paix mu liggéey en paix ay ministre am liggéey en paix ñu génn si génn si pandémie mi ak jàmmam mais sénégalais jógal ma toog rek la xam pourquoi jógal ma toog lu tax ay ay candidat yi dul gi du xaaj ku nekk mel jargañ xam ñu dara civilisé wu ñu dem di ñees ñii si te lii ngay wax kii dañ ko jox ay at yu mu a toog c'est pas normal c'est pa normal ministre bu bokk si président rek nañ ko guerre seetu leen li ma leen wax sénégalais yi comprendre ngeen bu baax fii dëkk bi Sénégal bu jëkkoon du golox golo léegi golox golo la waa gi de yéeg nga yéeg mu wàcc nga wàcc bu lekkee madda nga lekk madda bu lekkee tol nga lekk tol ay nit lañ dofuñu nga ñëw nag léegi ñu ne Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la république man jaraaf Youssou Ndoye bu ma si bonee xool fu ma jëm pandémie bi bu fekkoonte ne ñi mën a xool lay jël mais ñëpp lay gën di raati raati rek Ablaye di bëgg a boppam ci liggéey dama liggéey ah ba ba ba président Macky Sall ñëwee ba léegi def ko def directeur jóge fa mu def ka ministre tey jii ñu tollu si tolluñu si évaluation xam nga si ñu toll fexe ba pandémie bii génn marché yi dugal nag lu nga xamante ne mag ñi moom leen daan wax di ko def pandémie ba su fi jox mais bu ñëwee mag ñi ñooy seet ba trouver luñ koy réglé nu coutume bi ñu ngi seet fan lañuy jaar ak pandémie bi su ñu si amee bunta état bi si boppam aussi nañu déglu parce que nit ku dangay jàng école je suis wala nii wala naa defe ni alors yow yaa ëpp doole ñi fi toog manul ne fii coutume lañ wax coutume dafa am administration jiite ko euh, euh, diine nekk fi ay diine ngoon institution lañ comme ñoom ñëpp tey jii ñu gën a pour wax lii war a wax muy ab dëgg ak dëgg lu ab Abdoulaye Diouf Sarr parce que panelu bi Abdoulaye Diouf Sarr dafa am na dëkk yoo xamante ne bu ko demee sax xamul bu fa tàkkee mën laa wax peggum sànn te panelu baa ngi ko yéen bu baax Sénégalais yi kenn du fi dox xam ngeen Euh, corona bi fu mu déparé fukki dëgg wax fa pan fa panneau bi déparé fa ngeen ragal wala ña ngeen ragal ñëw nu wax nun nii toog si booru tefes gi rek la lekkat yu dem ba seet aw génn rek la noo lekk talal ñu sax ay waxi bandi mag ya kenn xam nañu réglé Sénégal buñ ko bëggulee yàqa nañ ko teg si yoon li fi xaw ku nekk gis na ko tey jii président de la république ku koy xeex demal xeexi ko sa àll ba moom mooy président tey mooy président suba fii ñetti at ñu doog a seetaan loolu yow mën a xaar nga dund ñeent fukki atal teg juróom fukki atal teg ñu xëy ñu ne nañu xaar trois ans ku nekk na du ko xaar ma ne euh, journaliste yi ñu baax ngeen mais ñu baax ngeen Ousmane Sylla dafa waxee noonu rek parce que hmm. xamu ne gars yi leen di wax ngeen xel bi waaw te normal ñii waxkat waxkat yi bu ñu waxee ngeen génne ko ñun tam bu ñu tontoon nañu génne li ñu tontu ku wàññi yaa yàqa problème mooy réew mi yomb naa waxee dëgg parce que ay nit lañu su fekkente ne Abdoulaye Diouf Sarr mënul woon nekk ministre du ko doon président de la république tànnu fi waa CM2 yi de déedéet ñi am baccalauréat la tànn ak ñoo man gi man Ngelaw Bissoulou man ñi ma ñaay taxaw bureau bi naan damay nekk ministre. boobu na ministre ñaari fan nag li bëgg am ab dof maa moo tax ma toog benn place ko ba léegi gis ngeen attention bu leen def ne réew mi dañuy dañuy nelaw ñu ngi seet fu ñuy jaar ak pandémie bi ba génn ko réew sant yàlla nu ngi avancé may leen ñu tuuti bu soobee yàlla yàlla dina nu suturaal dimbali nu ngir jëmmi Rasulullaay ndi ngir jëmmi Baay Laay ngir jëmmi sëñ Babacar ngir jëmmi sëñ Touba. nan ñaan yàlla. waaye toog rek di critiquer ma ne bu doon ku critiquer ñu ñaf la doo ko fi critiquer na leer bonne nuit gars ok.